tey yaa jàpp ne tey jii Macky Sall dina dugal loolu ci boppam ndax ànd ngeen te xam nga ko bu baax a baax. waaw mais xam ko moo tax may wax li may wax. Euh, moom ci lu mu ne da ciy ne ñu nit li ñu ne dañu ciy ne moom da ciy dem ba jeex waaye ñun ñu nit dinañ ci dem ba jeex parce que président Macky Sall wane na euh, la mu waroon def ne woon na bu élection municipale jeexee dana wax lu muy def. ensuite mu ne bu élection législative jeexee ñu koy xaar 31 décembre waxu ko ñu xaar ko 4 avril waxu ko ne woon naa du ko wax. bu ñu nee suba la parenage yi représentant am yolleeku ndànk dem jël parenage waaye nag avant loolu dina fexe ba toog ci lu mu tuddee dialogue te loolu yëpp lu ñu togg la lu ñu togg la bu yàgg am ñu ko fa garantil ne waaw na ñu bàyyi rek conseil constitutionnel danañu wax me conseil constitutionnel moo leen nommé ñooñu dañu ko naan waaw mën ngaa nekk candidat te conseil constitutionnel nekkul ca kaw peuple bi constitution amul lu ko ëpp solo donc euh, voilà ñuy woo démocrate yëpp pour que ñu ànd taxaw faire face parce que nag euh, looloo fi ne moom bu ñu ko jaarale woon fi mu bëgg a jaarale candidat yi mais kon du ne candidat lii muy def Ousmane Sonko bu ñu ko ko defoon du nekk candidat moom woo ko fii fii commissariat commissariat donc euh, quand même voilà. par rapport woote dialogue boo xam ne mu ngi koy woote am na ñoo xam ne sax jort nañ ne situation ne mais ñun ay nitu jàmm lañu. man ndey laa jigéen laa maam laa sax am naa sët man xam naa li jàmm di jar man dama dama dama dama nekk Afrique ci poste yu bëri poste yoo xam ne yii tolof tolof a nga fa ba guerre civile di commencé Côte d'Ivoire fa ma fekk xam na luy ay xam naa li mu mën a yàq ci réew waaye nag en même temps xam naa aussi liy démocratie xam naa aussi liy wareefu président de la république face à la constitution bu buggee jàmm li mu bëgg a def xam na ko li mu war a def xam na ko mooy la mu waxante woon ak askan wi la mu waxante woon nag sëriñ si la mu waxante woon nag électeurs yi mu respecté ko ñaari mandaayam yi léegi ñu jeex février lay jeex bu woote woon bu ko waxoon tey ne sama mandat jeex février lay jeex danaa bàyyi ku nekk vraiment nga nekk candidat affaire justice yi ñu teg ko fee ñaa ñetteel ba xale yi ci kaso bi yëpp danaa leen génne presse bi vraiment maa ngi jégalu ci li xew nañu continuer fañ jamoon kon léegi jàmm ne ñooy ci réew mi ñu continuer continuer suñu chemin démocratique ndax nag démocratie moo ñu fi moo ko fi ndi moom ñun ñu àndoon ak moom di dem place de l'obélisque am fukki nit ak ñaar ñu ci lo ñàkk seen bakkan ne serait resque à la mémoire dañoo ñu gaañu mais waruñoo quand même euh, nangu loo xam ne dix ans après dix ans avant nanguwuñ ko woon xale yi voté am dix huit ans ca ba nekk ca place de l'Obélisque ba huit ans la ñu am doon ay xale. kon ñun li ñu war en tant que seeni i yaay seen i mag seen i maam mooy taxawal leen taxawaluñ suñ bopp ñoom la ñuy taxawal ak réew mi. loolu nag ñu ngi ciy woo bépp démocrate ni ko suñu coordonnateur waxee pour que le douze. incha allah ñu am une grande mobilisation euh, pour refuser effectivement la régression démocratique bi nga xam ne moom la ñu président Macky Sall a imposer. c' est une manœuvre qu'il a organisée avec le PDS. cette manœuvre a commencé depuis l' assemblée nationale le président Macky Sall ba ma nekkee député non inscrit ci la perte majorité ci la ko perte mais comment les lois passaient elles passaient avec les voix du PDS noonu la demee kon fii du ay dialogue président bu bëggee ñu dialoguer xam na li mu war a def na commencé par ne damay respecter constitution bi ni ma ko waxee na commencé par teg ay affaire justice yi yëpp ci suuf d'accord libérer les jeunes wax ak libérer les journalistes loolu koy wax dëgg yàlla yomb na yàlla ce n'est pas excessif ce qu'on ce n'est pas excessif mais bëggul loolu li mu bëgg a def mooy continuer ca la muy def ba noppi nag jeter la poudre aux yeux de l'opinion nationale et surtout internationale parce que nag aussi ñu ngi attirer son attention sur les risques pour le pays donc mu ne xaaral ma jéem a organiser maak euh, sama euh, sama waa PDS si nga xam ne maa ngi waxtaan ak ñoom depuis lors voilà ñu mel ni ñuy waxtaan ñi bokkul ci ci ci dialogue bi ils vont nous catégoriser comme ñu bëgg ay non ñoo ko gën a bëgg a jàmm foofu bëgg a jàmm moo tax ñu ne na respecter démocratie. jërëjëf merci. asalaamaaleykum man la Cheikh Diop dama amoon projet de voyage Canada ñoom contacté entreprise bi ñu jàppale ma yow mi nekk étudiant commerçant entrepreneur ouvrier wala sportif nga bëgg tukki fépp ci àdduna bi moo xam nga bëgg dem Canada France Belgique États-Unis wala Espagne gaawal gaaw seeti Oasis Travel Sénégal Oasis Travel nekk ab cabinet d'assistance visa di leen gunge ci seen projet tukki ngir jàngi def tourisme stage wala ngir faju ji Oasis Travel Sénégal dialogue université Dakar Bourguiba immeuble Fofana ci deuxième étage ñu seen xamxam ma màcc ci wàllu wi daañu leen gunge ngir gindi leen ci seeni këyit Oasis Travel itam day dox ci wàllu vente ak réservation billet d'avion assurance automobile ak réservation d'hôtel mën ngeen ñu jot ci 77 434 83 83 77 162 07 07 78 192 82 82